salaamaaleykum mbokk internet dakarnet.com comme ni ñu koy defee saa su nekk yaakaar naa fii ñëw tey jii nii euh, yaakaar naa ne miin miin nañ ko suñu invité tamit mii ngeen ko muy soxna Aida mu Serigne Saliou tey moom la ñuy dalalaat fii ci dakarnet.com duñ defee lu jox ko kàddu yi mu nuyoog yéen euh, après ñu dikk moom ci waxtaan soxna si ñu ngi leen di di la ziar. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum diaspora waaye nag maa ngi nuyu sama buntu ci Serigne Touba di Serigne Mountakha Bassir di ko ñaanal yàlla yan bi oyof ci barki Seexul Xaddim Eh, gis nañu liggéeyam rafetlu nañ ko macha allah yal na ko fi yàlla saxal waaye di ñaanal suñu sëriñ suñu xalifa Baye Abdoulaye mi làqu di ko ñaanal yal na yàlla yokk ay leeram yal na tase ngërëm ngërëmal suñu borom te jëfam jim fi jëf yal na ko ko yàlla fay ci barki seexul xaddim ndax na wax dëgg yàlla ahlu laayeen ñëpp kontaan nañ ci moom ak képp koo xam ne sax yaa ngi yeewoo fii ci Cambérène ba paaseel ñëpp am nañ naqar ci naqar lañ nekk nii ndax boo xoolee suñu kanam yi xam ne triste na ndax dañoo ñàkk ku màgg ci ñun ku ñu jàppale lool nag macha allah ci ak njabootam ci njaboot gépp mu boole leen nas leen ba ñu doon kenn di ko jaale ak lu laayeen gépp ak tarxiya bu mu mënti doon ñu ngi leen koy jaale di ko jaale sama bopp ndax ñu ñëpp njabootam lañ waaye it di dem noonu ci cene ba cene ba yi it di xam ne ñun ñëpp rek ay jullit lañu lu laal kenn laal na ñëpp di jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla suñu kilifa yi fi ne yàlla na yàlla yokk seen leer yàlla bàyyi leen fi yàlla taxawu leen yani oyof ci barki seexul xaddim waaw mi ngi noonu kooku mooy soxna Aida duñ def rek lu dul dugg waxtaan ak ci moom ah, ñu gis ni soxna si ah, tamxay des na 4 jours te Kounkandé moom fu mu jàpp ba léegi jàpp lu ci gën a jaaxal nit ñi sax ne da ko def entrée 50 000 ku daggul tikki 50 000 dugg seetaan nan ko ko gisee. waaw kooku Anta bu nekkee étranger ñoo ko daan ñoo ko gën a pare téeméeri ñu ngi ko taxaw di ko xaar xam nga sénégalais ñun man dama nekk ci programme mu mu ne nii euh, seet nag yi ma war a rey ndax bala ngaa dem di seetaani kuukaande da ngay togg say cere baaral ko moom du ñu déranger du ñu yàqal leen ni ñu ko daan dundee événement bi rek la ñuy ñaan suñu borom may ñu fekke ak tal ndax ñun suñu at mu bees la suñu at mu bees mi nag yaakaar naa ni ñun duñu ñu toog ci suñu réew mi yàgg koo dund suñu mag ñu ñi ñaan fi benn étranger ñëw fii xam nga étranger dañoo ñëw di yëngal ak def seeni bêtises ñu leen ci bàyyi ci Kounkandé la ñuy fayee bêtises yëpp li ñëpp def ci Kounkandé lañ koy fay Kounkandé dina dund ñuus yu métti ñuus yu mësta ñuus dinañ ko ko ñuus man soxnaay demu sëñ Saliou te entrée gratuite la entrée bi dama koy yombal Sénégalais yi def ko cinq 500 francs entrée cent francs te maa ngi koy ñuusee ji ca arène ba arène national tawaale bu ko bu ko bu ko xareeg bu ko xarul yëpp. non bu ko xaree dama koy ñuus bu ko xarul dama koy ñuus man li ma ko wax dafa clair te bis bi laay xaar ak dat bi te xam nga ni bu boobaa am na ku koy tëgg. kan tëgg bu jour ba. bu boobaa faramaareen bi laay woo. ki nekk ci xolu sénégalais yi sénégalais yi namm ko ki nga xam ne boolewul daraa ki wax jëfam ëpp waxam. moom bu nit ñi di wax mu toog ci liggéey bi ci liggéey liggéey bi di ko liggéey liggéey bu mucc ayib di ko ñaanal fa fële mu nekk ci Abidjan yàlla na ko fa yàlla defal ndam ci barki Seexul Xaddim waaw ki nga xam ne moom jëfa ëpp waxam man moom man sama doom la te xam nga nag li ci li ci li ci doom li ci yaay mooy nekk ci doom li biteel bi xeeñ rek la kubéer gi xeeñ bu bis baa moom mu ñëw di tëgg tëgg fu nit ñi di bége ku teg ko entre 500 francs ma ñuus ko mu génn sunu réew ñibbi wax ji jeex Ah. maa ngi woo mbëri di woo képp koo xam ne bokk nga ci réew mi ak xale yi rappeurs yi na ko ñëpp teewe si waaw na ko ñëpp teewee si bu boobaa xam naa boobu moo gën a nekk loo xam ne moo gën a wóor waaw ay xar géej gi wóorut entre cinquante mille yëpp wóorut bi wóor moom mooy arène nationale. nee na moom da kay xaar sept fois ah, te amile mën na ko xaar ba siin. ku ku bëgg a jàll jàll loolu la wax de ba pare nee na moom du ci génn parce que lu mu def nii lu mu wax da ngay def ci kàttan xarul dara set news rek la gis li ma gis rek la wax xam nga ni day wax gis ay mbiram di ko wax te nit ñi duñu comprendre jarul sénégalais di ci sonn nañu régler tam xarit gi ñaanal te yàlla xam nga ñu nekk suñu at mu bees mi préparé ko réew mi étranger duñu ko yàqal li mu fi doon am ci bësam jël na ko li ci des mooy ñu ñuus ko mu ñibbi. incha allah ak koo koy soxna Aida gis nga lu mu wax noonu ci kan euh, euh, ci ku Kande nee na noxo euh, gaa yëpp xam ma préparé moom nee na moom bu paree moom day tëgg arène nationale fee woo Waly Seck ñu feete ko comme comme comme ni mu ko waxee bu ñu jógee foofu soxna si gis nañ jamono ji passé sëy yi bari na gaa yaa ngi takk naka nga ko gisee. sëy yu neex dëkk bi yëngu na coow li bari na kore naa ñuy bëgg a mais it nag sëy yu bees tàq dina ci am sëy yu am mbégte sëy yu am bànneex sëy yoo xamante ne ni dinañ ko takk yàlla def ci ndox mu sedd guy nag sëy yoo xam ne ay njaboot yu góor dina ci bari ay seex sax dina ci feeñ waaw muy Amina Poté sëyam macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm te dina am sëy bu neex a ngi noonu macha allah na ko Sénégalais yëpp ñaanal am na tawféex am nag yàgg. am seex wala. am na yàgg am na tawféex xam nga dama ne ñoom ñett ñoo ñu sëy muy Aïda muy Dada. ñoom ñetti sa yooyu yëpp seex dina ci am tey boo nee fenn la rek sama moroom ñi ci des dañuy mbubboo loolu ndax man la nii xaar dañuy toog ci internet bi di ma taaxirlu su ma nee xaar rek ñu ne hey léegi nag damay côté sama yëf waaw yëf sama yëf dama koy côté léegi damay ju teg ku ci bëgg am lu leer su ma jëlee ci suuf ma leeralal la ko ndax sama lépp dafa am cote. am na yeneen ñett ñoo xam ne dinañ leen maye ci biir nawet bi. non duma leen préciser nag su ma leen préciser léegi ñu commencé leen a woo di leen benn bennal fukki caméra la nii woo fu na ñu jël samay waxta saare fa ku ma jël ci suuf dinaa la wax ñan ak ñan la ñoo xam ne seeni sëy ñu ngi ko doon xaar boobu ba léegi te kenn dégg ko te ñu ko doon demoon lañ ba foog nit ñi xanaa góor ñi dañ leen fee ba wala góor ñi bëggatuñ leen ay nit célébrité lañu. mais mais xel am na fu mu dem de est euh, si euh, waxoo Kumba Gawlo dama ne ñett ñoo xam ne dinañu sëy te seeni sëy kenn foogu ko woon. ndax yaakaaroon nañ ni kenn xalaatuñu seeni i sëy. boo waxee loolu xel yëpp ci ci Coumba Gawlo dem li ci doy waar mooy ay sëy la yoo xam ne fi sëy yi di amee fu kenn dul foog lay doon ñu leen yàlla di booleel du kenn lu ñu sénégalais di foog loolooy am tuuti ci kanam nan ko déglu waaw ak lan loo bëgg xamaat. mu bëgg a xamaat mooy que ni euh, euh, élection yi gis nañ ne ne mi ngi ci kanam lan nga gis ci élection yi. ak thème yan yan ak thème yan sarax nga bëgg a joxe. élection yu neex élection yoo xam ne eh, yuuxu dina jëp fu ko yaakaare wut woon waaye daal xam naa ne li fi ne jógoogu fi de mi ngi fi ba léegi. mooy Macky Sall. fi na saraxe nag jàkka ju ne na fa yóbbu ay keesi néew la ca des. dinaa ko wax après. keesu keesu néew nga wax rek soxna si. ay keesu néew laa ko saraxeloo moom nag ci propre moyenu boppam moom moo koy saraxe la ca des su ma jotee man danaa ko wax lan la ak lan la ak lu ëmb loolu ak lu waral loolu. wax lan moo waral loolu soxna si. kilifa kilifa la ndax mooy sunu président nag te réew dafa am loo xam ne daf ko baaxoo dafa coow li daf ne woon ku ci réew mi maa ko gisoon ci bi mu ñëw wax ci na Sénégalais yi di dem vaar. di seeti ay waxi soxna Aida moom président laay waxal na def sarax bi ma ko wax gën na te leneen ak leneen ci biir te bu nu ca yeggee dinaa ko ko leeralal waaye keesu néew yi kenn du ko ko génneel moo koy génneel boppam képp ku bokk ci état bi képp koo xam bokk nga ci nguur gi na nga saraxi suluxu mbalax suluxu mbalax bee paase domodaa mais bi suluxu mbalax nga wax domodaa ba lan la def xam nga sénégalais da leen di wax ay sarax du ñu xam sarax bi lan moo ko njunju waa suluxu bi dañ koy génne képp ku nekk ci état bi da ngay génne ñetti boolu suluxu mbalax suluxu bu neex ngay togg génne ko ñetti ndab nga saraxe ko boo ko saraxewut bu kenn jaaxal kenn soxna Aida nag mu ngi toog bu dee nag loo xam ne sénégalais yee ko moom wala waa réew mee ko laaj maa koy njëkk a génne ak samay pour moyens yéen miin ngeen loolu ci man mais d'accord dañoo gis ne yow nga ni ab euh, président yi gisaat mu toog te moom nee na troisième mandat du euh, am loolu loolu lan la mën a demee. néew ma la day toog de dama la ni jógee gu fi jógee gu fi rek falaayam ah, boo nee jógee gu fi xel yëpp day nekk. dama la ni soxna Aida njunju da ciy dagg ne ci teel jógee gu fi laa wax ku ci bëgg am lu leer seetul soxna Aida dana la wax lu tax mu wax loolu. mais yi dina am wala. dama ne. kii jógee gu fi dañoo nekk ci réew moo xam ne fii ba deux mille vingt trois ah ñu ngi ci nii ñaanu sëñ mu taxaa gi nag def na jàmm te jàmm dina am dana wàññeeku lool waaye nag dafa des ay tuuti ñeent rek ci réew mi soxna da waxantuwul dem leen vaar. soxna si yaakaar naa lu mu waxaat foofu tamit leeral lu ñu dem nag duggaat euh, euh, ci foo xam ne tamit euh, gis nañu fan yi passé soxna ci série yi am ñuy gis ñi dañuy sumeeku di def taatu leen di def naka ko dul noonu en tant que mère de famille ba yow boo waxee ñëpp dañ lay déglu lan nga ñu mën a wax tey ci loolu. bi dong nag li yokk dee yokk yokk corona bi summeeku bi ci la de affaire de sumeeku yi dañoo gaaw a sumeeku sénégalais yi léegi jigéen ñi gaaw nañoo sumeeku góor ñi gaaw nañoo sumeeku summeeku da leen a yomb de. la moo waral loolu est mu ñoo jàpp ko ñu ngi àxiru zaman nit ñi ñoo topp seen nafsu rek te ba pare nag euh, képp kuy jigéen képp ku jigéen ak xale bu góor bu ndaw na nga saraxe connexion. connexion mais. <laughs> non bàyyi leen rëy bi connexion egsee ci réew mi ak li connexion def ci réew mi jàngat leen boobaak tey li xew ci réew mi lan la. am tamit benn maire boo xam. da ngay gis xale bu am 18 ans wala 16 ans wala 15 ans boo ko mësaan di foo di ko tooñee gel sax mu jooy xale boobu tey mooy jël di reyante ndax jigéen nañu saraxee connexion kuy xale bu góor toll ci 20 ans ba 30 ans jëndal carte crédit nga sarax ko ka nga dendal nga sarax ko. góor mi jigéen nga ne ko duggee ko connexion bu dee jigéen nit jël ko nga duggal ko connexion ne ko saraxeel connexion dégg nga waykat yi ak ñi nga xam dañuy liggéey ci média ak ñi nga xam ne dañu porte de voix la ñuy wax ah, porte de voix waaw ñi nga xam ne dañ leen wax ñu leen di déglu te lépp ak ñu yor siti nanu saraxe kenn ku ne benn téléphone noonu wëri yaa ñu saraxe ko. Nokia jaww ah. garaaw laa la wax nag lii nekk ci réew buñ ko fi bëggee dindi ku ne nekk ci jàmm kenn du tilimal kenn nanu ko saraxe kilifa diine yi ak kilifa yii ni ci réew mi te yenn saa yi nga gis ñu dugg ci loo xam ne carrément lii lu kii bi dafa bari nanu jël juróom-ñaari lëjum yi bokkul ñu saraxe ko ci nawet bi billaahi bu ñu deful sarax yi ma leen wax dinan dem ba fu ndaje di daje ah mu nu xoolee ndaje mi day wéet tamit gis nañ benn soxna si ah, ah, bu génn ci télé ne boo gisee dee yi léegi bari yëpp mi ngi am ci ay Instagram ci ay TikTok ci ay ci ci YouTube bi. Ah, ci ay estati li ngeen noonu nga ko yow nat ko naka nga ko gisee ban jàngan nga ci. ñi dàq estati nag deewuñu man looloo ma jaaxal ñi dàq estati ñoom dara wóqu leen si buru sax dalu leen xanaa xam loolu saraxe la defaru ba rafet nga estati loolu mbégte la. loolu day dindi ay jàngoro sax corona bi boo dee seetaan ku solo ba rafet xale yi nii ñuy statee day dindi stress loolu mënul rey kenn. moom nee loolu mooy rey xale yi yu ndaw yu bari. xamam la du ma ci dugg mais soxna Aida moom bëgg na xale yi di gën a am connexion. leen de dinaa la ko xamal ñiy sacrifice ñun ñoo dëkk ak ñoom sacrifice guñ fi benn jànq. yaa ngi may déglu ay responsable lañuy ñuy séqal liggéey rey leen ci kaw seen liggéey yi ñu séq ak ñoom ci lañ leen di nax ba rey leen yaa may dégg wuyu ñoo nekk ñun. mais boobu ñu déggoon ne ah, temps yii passé moom moo reyoon loobe di jàpp ko di ko dóor ba ba mu génn àdduna soxna si loolu nan nga ko gisee en tant que euh, kii nii euh, seetkat. loolu def naa ci ay sorti kooku ko xool xam ne yàgg naa rey mais man sama mbokk jigéen ñi laay wax. na seetkat yi góor yi ak yii nii doom yi ne ci réew mi liñ ci am bari na torop ñoo jur ñëpp ñoo jur ñëpp liñ ci jur ak a bari ndax seeni garambu bu yu rëy la toog ñëw dugg sa kër yàq sa kër nga am sa problème dem wax leen ko ñu jël sa xol changer ko modifier ko defaat la neneen gis nga suñ yëfi kër maam yi li fi soxna Aida di wax ci boo demee vaar kenn waxagu ko fii li ma fi jëf ci lu leer kenn jëfagu ko fi li coow li bari bari bari te ku weddi demal vaar vaar ku say wax wéru doo fa dem bari na ñu dul dem vaar wala boo demee vaar dootoo leen xool ndax ay kàcca fa ëpp li may leen di wax nañ ko déglu man nag bokkuma ak nit ñi fu may tëllee parce que li ma lii wan ci laay wax dëkk bi ratax na làmmiñ dafa ratax da ngay wax ak nit sa secret wala nga waxtaan ak sa nit wala nga defanteeg sa nit lu baax mu ne tey dalay yàq saraxu sulluxu bi ma wax mooy làmmiñu rattax yi génne lu ñaaw. comme sulluxu dafa rattax sulluxu day am kànja day am tigadege day am gerte day am confirmé dafa bari ay ingrédients day am ñànkatang nañ saraxee sulluxu muñ saraxee sulluxu dina bari ñu noppi léegi kuy wax doo xam loo war a wax dangay wax ba pare. doo ko xalaat li nga wax ñi yàqante ñëpp dañoo jegaantoo wala ki lay yàq sa xarit la woon bu la jege koo mësoon defal teel teraanga koo xam ne booy togg di ko yàq sa doo xalaat li ngay wax. na fi te wax yi ñuy wax yëpp ay grand mot ay gros mot la ay gros mot te damaa yaakaar ne réew mi war nañoo defar jikko yi lañu wax. dëgguma la sax ci kaaw kilifa gis nañu benn xaritam bu mu ànd ak vingt euh, vingt ans moo ko filmé euh, moom moom moom euh, mooy pour tas ko kon lool rek laa lay andil que ni jaw na ji maam ñi nekk ci yow xëy génn di la yàq dafa bari. bu nu saraxewul sulux di nga gis ko jàpp làmmiñam di ko yëy ba mu mokk ay gros mots la ñuy wax ay gros mots. ko gisee soxna si xayir mi ngi am ba léegi. xam nga lu am dëmmante bee bari. dëmm yi nekkuñu ay dëmm dëmm yaa ngi ni ñuy jàkkaar lool imagine jël wax joo xam ni yow ku ko tegoon mbubb moo xam ne bu ñu la ko solalee du la jot mais fexeel ba bu ko solal nit. mais nga ànd ak nit tamit génne ko xam nga euh, di génne ay vidéo pour weer ko loolu tamit doy na. wax wax ji ma dégg démb laa koy doog a déglu xaw ma tey lañ ma ko envoyé ci wax jii ñu tudd ci Wally sekk ci baayam xam nga lii bu dee dëkk bi am na ay autorité wala ñu ne dañuy defar jikko yi wala ku def ñu def la kon wax ji war nañ koo teg ci taabal ji xool ko xam ne du wax ju ndaw nit mën naa ñàkk baayam barki Dembo Njaay àdduna wërngal ñëpp di ko jooy mu liggéey fi liggéey bu rafet bi taxaw ñaanal doomam jox ko lenge yi jur ko tuddee ko tur wu baax nekk moom ba ñëw dem jot mu dem ay doomam taxawu ko ay njabootam taxawu ko di jooy seen baay te jeew jooy yi noppeegunu ñu jël wax yu rëy yu mag yi xam nga luy sacrifier xam nga luy baay bu sa doom ju sacrifier baayam xam nañ ko mais réew mi dafa mel ne léegi autorité yi dafa am ñoo xam dañ leen di xajal naa leen wax leen lu leen neex te kii moom bu waxee ñu teg ci yat wi non nañ waxante dëgg réew mi dafa jot ñu waxtaan daal ñun ay sénégalais lañu ay doomi réew mi lañ ñun ñëpp fi la ñu yeewoo fi la ñu cosaanoo te ku ne da nga fee am sa cër ndax ku nekk bu vote jotee da ngay vote ji bu am carte d'identité jotee da am carte d'identité mais nanu xool li ñuy wax. am na wax yoo xam ne nag wax ju xajul ci siwo kenn du ko yeb ci paan. mën nañoo dikkalaata tuuti ci wax jooju. ci wax jan wax jooju ñu nga wax ne xam nga moo sacrifié euh, baayam affaire yooyu. waaw wax jooju dafa rëy te ki ko wax mi ngi ci réew mi di ko wax réseaux sociaux yaa ngi koy tasaare mais il est temps kilifa yi nañu wax kilifa yi nañu wax wax dafa jot. kan moo wax loolu ngi ne teg. wax loolu. ki ko wax sénégalais yaa ngi koy déglu. réseaux sociaux yi mi ngi déglu ñëpp a ngi ciy débat mais débat boobu kenn tegu ko ci taabal ji débat ci nan ci wax nan ci wax Faramareen bi doomu réew mi la de te bu dee fukki nit sax bégal na leen fii ci senegal te waxagu fi wax ju reewande waxagu fi wax ju ñàkk kees sax waxagu fi nit wax jum naan lii maa ci dut baaraam tekk gi rek la maye waaye olof Njaay ko tekk goo gis wax la xam naa daal ku ko yéenewut jàmm yeboo nga jënd juróom-ñaari meetaru perkaal te waajal sa bopp. jërëjëf soxna Aida yaakaar naa lu ñu amoon ci ay minutes euh, jeex na tamit waxtaan bi am na solo lu ñu def rek du jox la nga tàggatook mbokk internetu Dakarnet yi doon seetaan. waa sant rek di ñaanal sama waaja sëriñ Saalu yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal sëriñ Mountakha yal na fi yàgg te di ñaanal yal na yàlla soppi xol yal na yàlla defar xol ñu nekk ci lalu hôpital yi nañ jóg ak jàmm. waaye di wax ne produit yi jàmbaar la ci feebar bi xew ci réew mi. day faj feebar mi ngi wàññi corona de day raxas corona ba mu seen corona feebaru fatt la day jàpp sa poumon yi waaw ndax euh, corona nag dafa cee liggéey liggéey bu am solo réew mi nag xamuñu ku dóor ku fayu la nu xam booy comédie ñëpp lay seetaan dañoo war a arrêté seetaan comédie tey déglu wax yi dañoo paase sunu réew fi mu toll. borom bitig bi daan jaay 1000 francs mënatu la jaay 500 kër goo dugg boo laajtee sabadoor ba ña ngi ko wékk boo laajtee paa ba ñu ne dafa dem jaale ji wala dafa dem rob dee gi bari na koñ boo dëkk ka nga daan tasel ca koñ ba bëgg ko mu bëgg la boo ko laajtee ñu ne dem na li ko yóbbu di lu gaaw tàgguwul kenn nga xool jàkka yi wéet na nga xool fi mu ne dëkk bi jaxasoo na ñi daan jaay ci mbedd yi jaayatuñu borom kër yi am na ñoo xam tamxarit gi amagul nunu cere tabaski gi ñu génn am na nañu reyuluy xar ñu toog di seetaan ay comédie nañ bàyyi comédie bi te génne sarax yi te xool li ci réew mi te xam ne suñu réew mii moom la ñu am de suñu mag ñu baax ñëpp fi lan yeewoo te jot nañu defaraat xol yi def nañu dégluwaat mag ñi jot nañu bàyyiwaat xel mag ñi jot na gone yi di déglu mag ñi waaye des na it mag ñi di bàyyi xale yi xel te ñu defar kër yi ku ñu yarewut ci kër nag mbedd mi dina la yar wala nga taseeg loo xamut te kuñ la ni moom a nga ni du moom waaye nañu defaraat xol yi ñii ñafa ngi ñaf ñii dóor a ngi dóor te boole wuñu dara ki wax te kenn leen fekk ñu toog ñu laaj leen lan la. waaw mbokk internetu euh, dakarnet.com ñu leen andiloon yaakaar naa ni waxtaan bi am na solo dégg ngeen tamit soxna Aida wax na lépp loo xam ne tey jii loolooy avancé loo suñu réew te tamit di wax jee tamit soxna si nee bu ñu fàttee euh, saraxu suluxu mbalax yi di la jaay jëfal tamit yow sama cameraman bi ëllëg ak keneen incha allah jaajëf.